Euh, lii nga gis ma téye nii moom mooy traitement bi nga xam ne mooy traitement cheveux naturel nga xam ne man Cheikh Omar Diop maa tuddee lii cheveux naturel ndax gis naa jigéen ñi ñu ngi monter ay cheveux ñu tuddee ko cheveux naturel mais loolu cheveux monter la mais bii nag mooy cheveux naturel kii képp koo xam ne yaa ngi ko jël di ko diw euh, dina la dimbale ci sa karaw dina tax sa karaw bu fekkoon da doon damm di ruus walla muy yéex a sax wala nga am leel ci sa reboor yi lii moo koy dindi. baax na ci karaw guy wow baax na ci karaw guy dagg baax na ci leel baax na ci li nga xam ne mooy ñi nga xam ne dañu am ay ndoxu siti ci seen karaw disponible na ci mbooleem boutique bio naturel yi képp ko soxla boo ñëwee ci boutique bio naturel yi mën nga ko am